baa yéen a ci jàmm baax alhamdulilah Père Jules Père Jules noo def am jàmm démb de gisoon naa la ci ci ci ci signature bi ah ñëwoo gisaloon yére bu noir du yow kon keneen moo ñëwoon kon da nduroo am na ci réew mi ah duggoo biir seen TV démb sama seex mën na fa dugg sama takkandeer. Mhm. Mhm. mais démb loo ci jàngat ci ci ci ci seen première jàkkaarloo ngeen waroon dajeeg Modou Lo te mujjewu la am lu ci baree bari ñu jël ko sëf ko ci waa Pikine yi ban leeral nga ci mën a def. non bàyyi joxal gars yi gars yi dañu ko leeral. man moom mhm. mun ma yi dañu ko leeral joxal gars mais ban message ngay lancé ñi nga xamante ni ñu ngi ànd ak Ama Baldé xale yi surtout. non xale yi ñoom xale yi dañ supporter support supporter la ñoo topp rek waaye supporter yi ñoom defuñu la ñoo nañ dëkk. def hmm. gaa yi am rek bés li nekk quoi yàlla baax na. Hmm, loolu la gën a ñaax ñu ànd ak euh, ci ci yar ak teggin ak ñu mel noonu. non ñoom dañuy yaru am hmm. nañ yar am nañ teggin. waaw parce que sa mbër dem nga topp si loolu yar ak teggin la. gaa ñoom duñ tooñ duñ def dara. kon kon moom xeex mos fa bu Modou Lo ñëwoon lay am xeex. Mhm. waaye Modou Lo ñëw kon lan lay xeex di hmm, ñu ne Modou Lo ñëw na mais xam nañ ne kii bi mu ñëw la. Ah. bu ñëwoon bu ñu bu ñëwoon ko signature am kay dañuy wax rek. Ah. ñëwul bu ñëwoon signature signature bi am ñu ñëw nañ ba dugg ci biir moom ñëwul. kon centre la mun a amee kon bu ñëwoon kon centre centre bi am ñëwul. kon yow da bëgg a dàq li ñuy wax ne manque de sécurité moo tax ñu ñu arrêté affaire yi. waaw lamatañ dugg xanaa Modou Lo moo ñu gën ñun lamatañ dugg bu nekk ci biir huit heures ba onze heures nekk ci biir kon la kon kon affaire gën affaire affaire ku ma la dañuy xool seen bopp bu baax waaye dañuy wax. Hmm. teguñu ko si yoon dañuy wax rek. Hmm. boo bu ñu doonee journaliste dañuy wax luy am bañ a wax loo xam ne amul bàyyi sos bàyyi wax loo xam ne tegginiwul ni dee bu xasee yore média da ngay wax lu am teggin. Hmm. wax sos loo xam ne wax loo xam ne du dëgg. donc di da koy moytu. ndax ñoom bu ñu waxee loolu naan Ama Baldé moom la ñëwoon ne dañuy fen waxuñu dëgg. nañ wax dëgg dëgg mooy jot boo waxee jot nañ wax dëgg hmm. voilà ñun ñoo fa nekkoon nañ wax loolu da la moo tax ñu indi benn sos boo xam ne indi loo xam ne di xeewal nit ki di xeeb nit ki hmm. da ngaa gis ni làmb ji dañ leen cee bëgg a tuutal yéen duñu si tuutal hmm. mbir mi mbiru yàlla la yàlla moo ñu ko may mu neex leen naqar yàlla moo ñu ko may mu kenn mu ñun tuutal buñ départ ñëpp a ci topp loolu moom bu fekkee loolu mooy toccan xol dañuy dee mais Grand Jules man li ma jaaxal mooy gis nañ ci signature bi waa pikin bi ñuy ñëw dafa mel ni dañu jàppoon ni démb la làmb ji gis naa mbooloo mu takkoo takku gis ay moto gis lu nekk ci waa Pikine yi ñu ñëw en mas ànd ak sëlu bu ndaw bi loolu lan la. ñoom ñoo namm mbër bi. Uh-huh. pare bëgg mbër bi. mbër bi jaral leen lu nekk fu mbër bi départ dem départ topp ko si du si mbër bi. Hmm. ñoom bëgg mbër mbër ba woon loo xam ne kon jaral ko te bu bu ñoom bu mbër bi woon leen loo xam ne lii jaral na leen kon nañ ko topp. waaye mm-hmm. mbër bi da leen woon loo xam ne carrément da leen jaral moo tax ñu jaral ñoo ko jaral leen seen bopp. Mm-hmm. kon da nga bëgg a confirmer li waa Pikine yi doo wax Modou Lo dafa daw Modou Lo dafa daw kon Modou Lo dafa mujjee daw. waaw ku ñëwul ku ñëw waxuma daw dafa sàq nga naan daw. ah mais est-ce que du Modou dafa gis euh, manque de sécurité bi am foofu moo tax ñëwul. waaw sécurité bi sécurité bi gendarmerie yaa ngi fa zimmi yaa ngi fa. kon mm-hmm. sécurité moo ko nekk. waaw bëggul ñëw rek bëggul ñëw moom mënoo mënoo ñëw. mënuñu jógee Pikine parcelle moo gën a jege foofu ñun Pikine la jógee war ko fa njëkk kon c'est ba non ban ban ban xamee loolu comprendre sécurité Modou Lo lañ njëkk ñëw dugal kon ñuy jógee Pikine dafa sori ñu Modou Lo nañ njëkk nañ njëkk woo Modou Lo mu ñëw dugg parce que ñoo dugg fekk ko hmm. waaw léegi kon loolu defuñu loolu kon kon ñoom ñoo ñoo def ñoo def ñoo def seen yëfu naa fekk rek hmm. léegi yan kàddu ngay dénk promoteur bi pour yeneen yu mel nii su amee yan disposition lañ ci mën a jël ba daje bi mën a am Modou Lo wax Ama Baldé wax te du am benn problème. pour promoteur bi bu lu muy wax lu muy def lu ne yëpp na yemale yemale. Hmm. waaw gis ni yemale amagul. amagul te ñu ndax mënuñ jógee Pikine moom mu jugee parcelle parcelle moo gën moo gën a jege foofu. Hmm. kon mënu ko mënuñ doon convoqué moom mu teel a njëkk a ñëw. Hmm. léegi ñu ñëw nañ ñun ñëw nañ ba dugg. ñu naa mu ngi ñëw mu ngi ñëw mu ngi mu ngi tëdd ngi toog mu ngi nekk koñam ñaan mu ngi ñëw mu ngi ñëw loolu def téléphone ñu def ko à direct ñu koy gis hmm. départ te ñu ñu si biir fii depuis huit heures ba neuf heures kon promoteur yematewul yemalewul dañu war a yemale gis nga mi mbir yàlla la hmm. waaw bu ñu xëccee fii xëcc fa loolu yàlla moom li mu bind bind na ko pare kenn mu dara si hmm. nekk ñun combat bi ban date ngeen ko fas yéene pare pour bëre wala promoteur bi waxagu leen dara ci jëm ci. non saison bii du ko génn saison bu génnee saison bi promoteur dootuñu ko bëreelti saison boo xam na ko sax saison bi génnee saison dootuñu ko bëreel deux ans ñu toog di xaar génn dootuñu bëreelti sax. Hmm. waaw xam ne loolu sax. maanaam seen contrat moom. contrat bi saison bii bu jeexee dootul bëreeg Modou Lô. dootul bëreeg Modou Lô. dootul bëreeg beneen contrat contrat hmm. waaw. Modou Lo moom biir bëre wasin bëre. Hmm. waaw. <laughs> maa fa teg jeexal mooy lan. <laughs> waaw ba ma teg jeexal laskul. <laughs> ah loolu wax laskul. laskul. laskul laskul. Eh, persil ah waaw ba léeg-léeg yaa fa teg jeexal nga ni ko loolay laskul.